ndax lu tiis la ci réewum Sénégal réew mu mel ni Sénégal lu tiis la ci xoolu kenn ko nekk ci yenn Sénégalais yi ak foo munti bokk ci diine wala ci waaso wala ci dëkkuwaay li xew démb gàcce la ci senegal àdduna bi yëpp di ñu seetaan lii de lañ leen doon bañal moo taxoon ñu ne woon dossier bu nu mel warul woon sax génn ci enquête phase enquête gendarmerie waxuma laa procureur di ci def réquisitoire ba juge d'instruction di ko jël ba mu yegg fii mu yegg dossier bi warul yegg foofu yépp waxuñu woon loolu parce dañoo jàppoon ni citoyen extraordinaire lañu ba du dee def bu dee def nañu dara yoon bañ ñu war a topp déedéet waxuñu ko foofu ndax li ñu gëm ñun ak li ñuy dund mooy li nga xam ne jàngal nañu ko ci diine bi yonent bi alayhi salaam waxee ni Fatima doomam ne ko ak li ma lay bëgg yépp boo defoon naka noonu yoon dal sa kaw te duma la làq sama gannaaw man doon laa gëm kon waxewuñu woon foofu waaye dañu waxe woon ci kaw dossier boo xam ne lépp ay fenk la ay nar la ngeen jégal ma ci kàddu gi ay feni neen la dossier boobu warul woon sax ñu koy yëkkati rawatina nag mu yegg fii ba lu mat daanaka ñaar fukk ci ay bakkan rot nañ ci lii lañ doon bañal senegal li xew démb defe naa ak sénégalais bu ne fi mu toog rus na ni ma leen ko doon bañalee nag noonu la ko Macky Sall bëgg la leen ko bëgg leen ndax li xew ci dossier bi yëpp ma baamu ko weesuwul loxo Macky Sall ba waxee nag dañ naan moom lu wax mu singali Macky Sall waaye Macky Sall mooy wax procureur defal mu def loolu est-ce que xam nañ ko mooy sant procureur jaare ko ci Ismaïla Madior Fall mu def mu ne ko bàyyil mu ba kon bi procureur Bassirou Guèye di yor dossier bi def ci lim ci def ci ay ñaawteef ba ñëpp gis ko te loolu umpul Macky Sall mu encouragé ko ci ne ko demal parce que boobu ja gisul leneen lu dul sama adversaire politique bi ma gën a sonnal bi ma gën a jaaxal am naa fu ma ko téye loolu indi woon fi lim fi andi woon diggante février ak mars 2021 Sénégal yëpp génn ne ko àndu ñoo ko li ngay def ci dossier bi ñaaw na salte na te teguwul ci dëgg ndax bu ñaawoon salte te tegu ci dëgg yoon def li mu war a def rek ñu foogal ni bu ñu génnee ci loolu dina ci am lu mu jàngat mu boomoon ci fukki bakkan ak ñeent ba tey jii ñu ngi koy jooytu ñun ñëpp te commission d'enquête bi mu annoncé woon sax defu ko ci ñëpp foog ni nag Macky Sall bu jógee ci lii dina seetaat dellu gannaaw ndekete moom ma nga doon dem uti doole gu mu nootee Sénégalais yi pour mën a wéyal li muy def seetu ci kilifa diine seetu ci société civile seetu ci parti politique seetu ci kenn koo xam ne ku ñu war a bàyyi xel la Sénégal dañu war a jàpp ni Macky Sall li mu gëm mooy moom su mattee rek il faut mu dagg su mattee il faut mu dagg nekk na ci dëgg nekkul ci dëgg moom bu xasee ba matt faw rek mbir mu dagg mu nekk ci lool ku ne woon sénégalais yi ñaari at ak genn wàll ci gannaaw Macky Sall dina jëlaat dossier bi andi ko ndax lii lépp weesul moom li mu nekk ci gannaaw justice di ko sant ak di ko dikk ñëpp gis nañu instruction bi nga xam ne juge d'instruction bi ñu wax maa xam jàllu def na ko démb defe naa fi mu toog war naa am gàcc ndax yow sooy instruire dossier ba nga koy instruire yëpp mosuñu laa andil preuve boo mën a téye te looloo xew démb ñàkk preuve boobu ba Sénégal yëpp gis ko ñu dem nag ba démb ci ñi seede ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne mat nañu juróom ak lu tegu ñu dem indi benn seede boo xam ne kenn gisu ko bi ñuy dem. gendarmerie kenn gisu ko ba ñuy dem juge d'instruction kenn gisu ko ba démb démb démb ñu dem làqarti ab témoin boo xam ne kenn xamul fu ñu ko jëlee waaye juge d'instruction xam na ni bi muy def instruction ba di ci bind ba di ma xas man ak di ma saaga te yàlla xam na ni gënuma ci bépp fànn nag ndax li mu def xam nañ fi lu ko ko def loo te liggéey naa ba jóge fi ma fi ma doon liggéey kenn mësul xalaat man ñu mën maa imposer ab décision ak lu ko mën a lal ci suuf moo tax démb fi mu toog war naa am gàcce Sénégal yi war nañoo am gàcce ci li mu liggéey noonu noonu noonu ba nii ñu programmé mbokk yi xool leen ci ñaari weer yi ñaata ñaata yoon la ñu woo Ousmane sonk ci justice ci lu tegul ci yoon ñu xam ni procureur moom mooy programmé te procureur mooy Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior Fall mooy Macky ñu ne nag. citoyen yi du négocier ay conditions yu mu demee man négocier wu ma conditions yu ma demee justice dama négocier wul dara dama ne liñ ma bëgg a teg su dee du yoon duma ko def man négocier wu ma de ndax doo nekk ci dëgg ba pare di négocier niñ ma bëgg a ah di di di tëj sama koñ di terroriser sama njaboot di toj samay oto di ma gaañ fileeg looloo ngi fi du ma dem uyu ji kooku du négociation donte nag. am na ay kilifa yoo xam ne ci kilifa justice la la bokk ñoo dem ba naqarlu ànd ak ñun ni li ñu doon def du yoon ñoom ñoo dem jël seen initiative woo leen ne leen il faut que état bi respecte liberté Ousmane Sonko en tant que citoyen mun a dem di ñëw saa ñu koy teg lañu koy teg ñoom nag ñu jàpp ni man maa doon négocier man négocier wu ma de man li ma nekk dama koo gëm nekk ci dëgg ku ma ëpp doole di ma soo may rey di ma rey ci dëgg waaye négocié wu ma kon ni ñu ko programmé ci fan yii yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb ay nit yoo xam ne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yoo xam ne bis buñ ko génnee àdduna tukki defe naa keroog rek bi may mujjee wax nee naa leen ku ànd ak Ousmane Sonko boo tëddee demal nelaw ba yandoor ndax lu toll ni tarfata ayn ci preuve amuñu ko ndax lu am mooy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokki senegal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle naa ci jigéen ba naan maa ngi dem di siif jigéen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa senegal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seetlu lu niroog dàngin gu AVC ma naan moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon lor rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama diggante xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Gabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg audio yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj na ko ndax audio yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga dangaa ëmb depuis ñetti at wala ñaari at ak genn wàll wasinoo ñu ne li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxeete nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone mosoo génne ay preuve nga dellu si def say audio wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour jàll moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caax caaxaan bi lor na doomu aadama yu bari du bakkan yi ci rot rek waaye ñaata. ay alalu jàmbur yàpp na ci ñaata yoon lañu jël réew mi naj ko ba kenn noo noo yeetu ak image bi ñu yóbbu ci senegal ci international man mii nga xam ne maay principal victime bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgër laay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni duma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko duma la mus a rusloo su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii Macky Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy waat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot waruñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a def loo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba faalewuñ ci Mademba faalewuñ ci preuve faalewuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci senegal rus naa ci am naa ci lu ma naqari li tax nag suñu xel warul dal ci justice ni muy doxee ba tey xam ngeen ni li xew démb yoon dafa ne mënoo àtte nit en matière criminelle lu dul am na ku koy layal avocat kenn mënul def procès te avocat amul démb ndey soxna su dul ndey ndey Xadi Njaay su dul dara sax di jigéen goo xam ne mu ngi toll diggante ñu naan juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer nga téye ko ci suba ba xaaju guddi nanguloo ko sax mu am avocat bu toog ci wetam ñu ne la bu amul avocat da nga war a arrêté ba ñu ko may ko mu dem uti ay avocat nga doog a def procès bi li xew démb musul am ci histoire justice ci àdduna nga ne faw rek ma def procès bi mujj gi moom lañ doon wax moom Ndeye Khady ndax am nga laaj yooyu laaj témoin yi ndax moom mooy avocat wu boppam procès boobu dafa nul amul fenn ci àdduna naka la ay juge mun a defee loolu ba pare ñu ne ñu na seen xel dal dem leen rek ngeen wuyu ji bu amee ñaari sénégalais yu gëm ni dossier boo xam ne politique a ngi ci Macky sal ne dee rek même su ma dul doon candidat sax Ousmane Sonko il faut mu yóbbaale ko ay nit dem di toog ak moom ay nit yu nekk ci nguur comme yu nekk ci opposition naan ko boo sàgganee ba Ousmane Sonko toog digg na la lii digg na la lële nee na dina la def nii na la def laa mu ne bakkanam la ci teg faaw rek mu yóbbaale Ousmane Sonko waaye waaye waaye réew du doxee noonu réew lay doxee ci kaw ay charges li war a tere Ousmane Sonko nekk candidat dafa war doon lu wóor te wér waaye du ay caaxaan bi ñu commencé ba léegi ci tappale la nekk nee nañu Ousmane Sonko jot na convocation waat naa ci yàlla billaahi wallahi bu dee jot naa convocation yàlla na ma yàlla alak ilaa yow miti te ñoom ñi wax ni jot naa convocation ku ci waat lii lakk commissaire bi bind ne ñëw na sama kër fii si Ziguinchor fekk moom taxaw ci buntu kër gi mu jox ma convocation wallaahi waxul dëgg dafay fen moom xam na ko ñoom ñi ko def xam nañ ko te li gën a yéeme nee nañu jox nañ ma convocation fii si Ziguinchor le 11 commissaire Adramé attesté ko ne commissaire Massali bi nekk Ziguinchor moo mu fekk sama buntu kër même commissaire Adramé moo defaat beneen rapport le 16 ne Ousmane Sonko jotuñu koo gis joxuñu ko convocation te moom nee na la onze jox nañ ma convocation. document yëpp mi ngi fi nañ ko génn ngeen gis pour woon leen tappale gi nekk ci justice fi mu toll nii ak ni ñuy jalgatee yoon dès lors que jox nañ leen commande politique ne leen yéen a xam fu ngeen koy jaare waaye faw rek ngeen dagg bopp waa ji président Ablaye Wade dama dañ ma envoyé tey benn vidéo muy def benn interview benn tubaab ne ko oui mais un procès est risqué mu ne oui en Afrique un procès est toujours risqué mais j'ai toujours dit qu'un procès politique ne se gagne pas au tribunal ça se gagne avec l'opinion su ngeen gisee sama taxawaay début ba léegi loolu laa leen bu woon wax li xew démb won na leen ni lii weesuwul caaxaan waaye su doon dañoo caaxaan ci lu ko jar mais jël suñuy doom